The students, two boys and two girls, drowned after entering the sea on Wednesday afternoon. A fifth one survived. This witness explains. Hale um nyom group of students lañ nyom group lañ won. Uh, uh mun naa woon ne ñu si ëpp school bi leen am na ñeneen ñu jógee si yeneen school nag ñu fi nekkoon dañ ko faral di every time xale yi nyu. parce que euh, am na suma beneen système ñu ko wax awa awa moom mu am fii restaurant moom ma hand over restaurant am bi fii Stars Kitchen so am na fi seven years so moom si maanaam lu ma explainal bu mu ko déggee mooy every year so xale yi demee ba time bi jàng nañ exam moom moo dee daaxa xale yi fii. so daf dee daa xale yi am pour dem ba si school bi waa principal bi ne lii xale yi ñi ngi ñëw si bij bi te séfut so daa gis ne moom mu fi jógee two months back because mu ma call mu ngee jooy mu ne ko fa mel ni moom daf la ma ne si bij bi ma free up suma mind bi jógee si restaurant bi ñëw so xale yi ñu woon that side foofu lañ nekkoon di fo so bu ñu nekkee di fo after man ma nekk fi ba ay ma ne xaaral ma dem juli soo ma dem julli boobu noonu dama pare julli dugg si restaurant bi rek ah, meru ma bokk ah, dendool mu ne ma xale yi ñu ne foo xale ñoo lab si biir géej bi ma ne ko loolu mu ta possible xale yi foofu laaleen leen bàyyi ñuy fo soo noonu laa roosee ma ñëw soo bu ma roosee ma ñëw ma tombé beneen xale bi ah, ndox baa ngi ko isi soo ñu ngi ñu ngi seet xale yi waaye moom ndox baa ngi ko isi soo bu ko ndox bi bu buñ try daw ñu génnee ko si si ndox bi ñu try soo si lañ nekkoon du try di ko pompe Euh, di ko pomp euh, ñu because ñu bëri pom neen euh, mun ta woog soo man si laa ñëw ma try so bu ma pompee for the first three times ok fiilu ma dara ma pomp five times demut so si laa try ma pomp ten fifteen thirty so after ma fiil ne deyut dafa sona waaye mu ngi in a critical condition so si laa waa Red Cross bi ne kii mu ngi sona because mos naa def first aid president our skin so ma ne ok nañ ko try ñu ros ko lopitaan waaye lii bu ñu ko roosee lopitaan ñu ne mu jëwut koo méeg si lopitaan bi so kooku bu mu génnee ambulance bi di ko yóbbu less am um, one two minutes uh, si la boot bi ñëw gaal bi ñëw gaal bi tam dafa demoon pour save gaay so si la gaal bi ñëw soo bu gaal bi ñëwee mu histoire la benn xale bu jigéen waaye dafa fekk xale bu jigéen bi moom dee na already so léegi da nga gis ne ñaari already ba tey ñu si biir géej bi ñu ngi try pour um, figure out gaay ban boor la ñoo génnee si géej bi but uh, the first one kooku noonu moom uh, génne ko moom survive na moom taxut ko sonn noonu moom right now mu ngi ok mu ngi ànda sagom waaye ñaari moom right now ñu ngi si géej bi so dafa mel ni kenn moo survive daanaka dañoo wane foo yëpp dee neen because um, ñu ngi génnee ñu leen ne la after two so after two ba léegi xale ñu ngi biir ndox bi so dafa mel ni kon dañoo wax ne ñooñu seen body yi leen soxla waaye already gars yi dee neen ba pare. 16-year-old Segunda Frera was one of the victims. Her family is dëgg-dëgg xale ku noppi la moom su defee dara soo koy coow sax du la dee uyu dafay noppi nga wax ba nga na mu noppi waaw soo comme yëfi yëngatu yëngatu yi ne tam gaawu ci yëfi géej tam mun na dem waaye du sangu su moromam yi di dugga sax mu ne leen moom du sangu ndox du ko jege soo demba kenn xamut lan moo xew ba mu dugga si géej bi mu sangu ñun tam loolu moo ñu jaaxal waajuram yi waaye xale bu noppi la yëngatu deful dara xamoo dara si moom pour ne nga xale mutut waaye am tam bariwut waaw. yéen naka ngeen ko yëgee ne moom moom bokk na ci ñu des ci géej man yaayam moo ma kool yaayam moo ma moo nekk bu ma doon wax ne ana sukk ñëwagut xale ñu ne déedéet soo yàggut damay teg téléphone bi rek yaayam mu ne ticcaam moo ko kool ne xale dañ des ci géej bi. ma ne ko man maa ngi wax ticcaam ñëwagut kii sukk ñëwagut kon ndekete sukk kon mu ci géej bi man mënuma bilif loolu sax noonu lañ demee ba ci biir moom ma gisee baagam bi. ak uniforme am bi ci laa soog a xam ne la man lu may ñaan fii tam rek bosam ñu dee ñi ne leen yàlla yëram dee nañ ba pare waaye nguur bi dimbale ñu tam ñu mun a xam ni ñoo gaadee géej bi bi ko soo waxee sax nga mun contrôle xale munoo ko xale yàlla koy suñu si géej bi dina bu dem na ba yereem mu dem balaa ngaa dégg ñu ne la dem na lii moo ñu surprise lo dem ba su du dem sama dem mu mu dem ku ko tam nga du dem la ñu dimbale ñu ci géej bi The students all come from the Senegalese school in the Gambia. We visited the school, but we are told the principal was in around. We, however, managed to speak to the president of the Parents of the School Children's Association. waaw accident bi daal ni mu demee mooy xale dañ dem école ñu jàng ba half past nine ñu jeexal school tëj. nekkati ñoom ñu ngi dem di préparer loo xam ne euh, parents si yëguñu ko school bi yëguñu ko jékki-jékki rek ñu dégg affaire bi happen ñu ne ñeenti xale lab nañ si waaw. dégg yooyu lan nga mun a wax parents yi si seen xale yi ñu nga xam ne ñu ngi si ñu ngi dem school waaye suñ fa jógee dañoo dem si géej bi yooyu di jéem a bugg a sangu. parents yi kay at chaque instant saa yu ñu amee meeting ñun dañ leen di sensibiliser. pour ñu téye xale yi si kër bi mais xale yi nag des fois dañuy def loo xam ne kenn yogu ko ko sof lii moom amul kenn koo xam ne ku ko yëg dañu wàcc school rek dem def li ñuy def dem si bij bi. Please are yet to speak on the issue.